xam ne moo symbolisé doole lislaam walis bépp doole bés boobu mooy dellusiwaat tey bés la boo xam ne bu jotaan daf daan fekk ay junniy junni ay millions et millions dajaloo foofu ca saidu arafa di waxandoo labbayk allahuma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk innal hamda ni'mata laka wal mulk laa sharika lak bu dajaloo boobu amul bu mbooloo moomu dajaloo wul itam ba faw inna alhamda wa nicmata laka wal mulk la sharika laka dafay wéy ndax yàlla mooy buur bi nga xam ne moom rek moo mën moo am moo sañ bu ko defee rek ñu ndokkeel ci ñi nga xam ne euh, ñu ngi ci ay gox yu fasaslikoo ci biir Sénégal waaye itam ay gox yu fasaslikoo ci biir àdduna bi waaye ñi nga xam ne itam akas néew ñu nga ca bés euh, béréb boobu di symboliser ajug màkka ren bi te ko tere yaatu mooy mbas mi fi ñëw ñu ñaan yàlla yóbbu ko ba bu déwénee ñëpp dajalewaat foofu ñoo ñëpp ñu ndokkeel leen wax leen wa kullu aaminu antum bi xayr Oustaz Adi yaa ngi ko bés bii daaw mu ngi ñu fekk ci béréb boobu yow nga doon def discours bu am solo di sànni ay ñaan yu am solo ci bés ba jëmale ko ci umma islamiya waaye jëmale ko ci senegal nga gis yàlla ki mbiram mu dogal li mu dogal ren ci àdduna bi waaye mu nekk loo xam ne itam nit ñu mën nañu ci jàngee lu bare bare bare bare gën cee yokke seen ngëm xam ne yàlla mooy ki am mooy ki xam mooy ki sañ moom mi def loolu itam taxul mu tëj buntu jaamu yàlla taxul mu tëj njariñ li nga xam ne bés bi am na ko rawatina sax ci ñi nga xam ne aji ñu màkk ba nga xam ne ku ko woor rek ngeneel bu rëy euh, diggé nañu ko ci ndax yàlla daf lay jéggal bakaaru ñaari at kon Oustaz Hady ginnaaw bu ma la ndokkee ci bés bi rek xanaa ma bàyyil ak mbokk yi bu ko defee nga jox leen bind ci leçon yi nga xam ni war nañ ko mën a jëlee ci bés bi di bésu ko arafat waaye solo bi nga xam ne saidu arafa am na ko alhamdulilahi rabbil alqail fi xadithihi alqudsi al arwaxu junudun mujannada fa ma taarafa minha talaf wa ma tanaakara minha ixtalaf wa salaatuhu wa salaamuhu ala sayidina muhammadin alqaa'il alxajju arafa wa ala alihi wa saxaabatihi dawi lilmi walmaarifa wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi alqiyaama al ustaas Xasan maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki jullit yëpp fu ñu mun nekk ci àdduna bi di dund arafa en tant que jamono waaye mënuñoo dund arafa en tant que dund arafa nag en tant que jamono moo gën a yaatu dund ko en tant que place li jamono ja gën a yaatoo tax yàlla gëñ ca mais gëñut ca place ba newal faj fajri man yàlla maa ngi gëñ ci fajar ak arafa gii jolli ku jaaj yëpp bàyyeekoo minan war xëy dem arafa fas yéenee fee jullee fa tusubaar ak tàkkusaan def fa jamoo taqdim mooy jiital tàkkusaan fekk jotagul gannaaw bi subaa jotee waaye dafa tamit salaatul xasri mooy wàññi ñaari julli yëpp mooy boole nañ jamoo ak xasru subaa ja ñaari rakkaa tàkkusaan ga ñaari rakkaa maa ngi gën ci fajar googu nga xam ne moo ëmb bëccëg bi ñi war fa nekk yendu fa ba jant bi sooyee leen fa waaye kenn du fa saña a julli timis bis boobu di jamono ja moom la yàlla gëñ waaye gëñ na ci ñaari yoon da ca gëñ gëñ goo xam ne da koo jagleel fajar ga ëmb bëccëg ba mu gëñaat gëñ goo xam ne fan yam gëñ dañoo far dugalaale bisu arafa bi ca bëccëg ga ak ca guddi ga te mooy wala yaalin asri wala yaalin asri jooje mooy fukki fan yi njëkk ci tabaski di fukki fan yu am ngëneel te fukki fan yooyu bu ca yàlla gëñee gëñaale na ca yow moo arafa bi nga xam ne mooy bisab juróom-ñeenteel ca fukk ya bis yooya mu gëñ foor foor gu day ne yonantu bi nee na jëf yépp ci tënk jëf ju baax moo ci gënal yàlla jëf yu baax yépp jëfal ko yàlla ci fukki fan yii moo ko ko gënal nam koy nangoo dana wuuteeg ni muy nangoo yeneen jëf yi yi tàbbi ci fudul fukki fan yooya fukki fan yooya nag benn fan boo ci woor yàlla bindal la ko payoor ak koor at mi muy koor fukki weer ak ñaar fukki fan yooya moom la yàlla buuñaa woon yonent yàlla Muusa bi mu ko xoorloo fukk fanweeri fan fanweeri fan ba gémmañam soppeeku mu soccu sama boroom ne ko sa gémmañ gi soppeeku ngir jaamu ma nga bàyyi woon ko noona moo ma gënaloon comme nag soppi nga ko da nga ko remplacer yeneen fukki fan mu fekki sa fanweeri fan yi muy ñeen fukki fan wa waadna Musa salaasina laylatan wa atmamnaha bi asrin jooja asrin jooja mooy wala yaarin asri ji yàlla gëñ muy fukki fan ci tabaski kon arafa tey ñun ñëpp al Xasan moom lañuy ñuy dund ci en tant que jamono waaye nag feebar bi daanu di mbas ci kaw àdduna bi tax na tey réew yu bari war a bàyyeekoo seeni réew waroon a dajee woon tey tey ci bisab arafa bi en tant que place mënatuñ ko dund waaye dund ko nag en tant que jamono moo gën a yaatu dund ko en tant que place waaye tamit dund ko en tant que jamono yàlla ubbi na réseau bi ne ku xoor rek jënd nga sa abonnement ma abone la ci Arafa ji moo tax boo xooree bisu tey bii yow dañ lay bindal yoolab ku taxaw Arafa waaye dañ lay bindal tamit yoolab képp ku moyoon yàlla ci l'an deux mille vingt bi ak ku moy yàlla ci l'an deux mille vingt et un bii ñu jublu bàkkaar ya fa dox yëpp sa woor ak tay jii nga xam ne mooy sa abonnement ci Arafa may na la ko kon bis la boo xam ne tabaarakallaahu bis la bu foora foora foora foor nag en tant béréb muy place dafa làmboo juróom-ñeenti mbir yoo xam ne foofu rek la bi ci njëkk Arafa tant que place mooy place bi yàlla signé woon contrat ak roox ci alamul arwaax fekk alamul asbaax bi ñëwagul ci wa iz axada rabbuka min bani aadama duriyatahum ñenn ngi jàng duriyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim balaa jooja yàlla mi ngi ko aloon ci palaasu Arafa waaye mi ngi amoon tamit ci bisab arafa bi ci juróom-ñeenteelu fan ci weeru tabaski waaye par euh, arafa tamit en tant que place mooy palaas bi sayduna Adama ak saydatuna Hawa dajeexee gannaaw ba ñu réerantee yàlla wàccee Adama ca Inde wàccee saydatuna Hawa ca Jidda ñiy dox di wërante di seetante di seetante ci bisab arafa ca bisab juróom-ñeenteel ba tombeeg place ab arafa ba foofa lañ gisantee ñoom ñaar kenn ku ci nekk lëng lëng lëng sa morom waaye arafa tamit en tant que place bi yonentu yàlla ibrahima tabaxee kaaba gi sama borom dafa sant jibril mu xamal ko place yi nga xam ne dafa ëmb aj ku tudd place yi ëmb aj sa xel daj musdalifa sa xel daj minan sa xel daj arafa ba mu ñëwee ba arafa nag di ko ko xamal ne ko fii la commencé fii la yem ci la ne ko araftu araftu araftu xam naa xam naa yooya moo waral tey ñu tuddee ko arafa waaye tamit arafa en tant que place mooy fii yonantu bi jotee mbébétam bi muy xaj xajatul widaa xam nga benn yoon la xaj gannaaw bi ñu ko yónnee njëkk ñi koy yónni ñii ne xaj na ñetti yoon ñii ne ñaari yoon lu ca mën a am daal ajam gu mujj gi bi mu ko ajee dafa armal rek commencé di ñaan yàlla mel na mbir yàlla tontuwut ko gannaaw bi mu xarmalee mu wër kaaba ga def tawaaful xudóom yàlla tontuwut ko mu def safa ak marwa sama borom tontuwut ko mu génn màkk ñëw minan sama borom tontuwut ko bisab juróom-ñeenteel ba ci Arafa nag ci la door a jot résultat wu ñaanam ga lu mu doon ñaan yow yàlla sama toppaange gi dox ci sama diggante xeet mi ci ay xàq yi dox ci seen diggante ci jëwante ci saagaxante ci xastante ci yàqante ay der ci lekk alal ju lekk lu lekk lu ci seen diggante damaa bëgg yow yàlla sa magasin yaa ngi nii fees tepp ki yiw nga gàddul ma fayal ma leen kuñ ameel àq nga fay ko keroog bisab arafa ba ca palaasab arafa ba ci la ko yàlla door a nangul ñaanam ga ñi xool yonent bi rek saxaaba yi gis ko muy ree benn saxaaba yu ne ko yàlla rafetal sa bëñ yi looy ree mu ne ko wallahi la ma doon ñaan bi ma xarmalee ba léegi maa ngi door a jot résultat bi sama borom nangul na ma ko ci yenul ma toppaangeeg sama xeet mi moo tax iblis a ngi nii maa ngi jàkkaarloog moom ma nga mera mera mera boole kook jël suuf di ko sotti ca boppam ba jàpp ne torox naa ndax man fii laa mënoon a jaaree xeetu tu bi ba yàqal leen waaye daal fi ma jaaroon fi ma ñaroon a jaar pour yàqal leen porte booba suma borom fatt na ko bis ni ki tey man torox naa moo tax bisu Arafa mooy bis bi nga xam ne ci la iblis di gën a torox ci at bi ci lay gën a xeebu ci lay gën a mer ci lay gën a ñëkkal xar bu gisee yërmande yàlla ji wàcc ci jaami yàlla yi ba yàlla di puukarewoo jaamam yeeg malaaka yi ne leen xool leen sama jaam yi bëbbee ci côté bu nekk ñëw dajee ci place bii te dara taxut lu dul sopp ma ak topp ma yi leen ngi leen seedaloo yéen seen sama malaaka yi ne jéggal naa leen toppatuma leen dara waaye al oustaz Xasan arafa en tant que place mooy place bi yonantu bi joxe woon discours bi di discours boo xam ne amul dara luy jariñ ci àdduna lu dul ba wax na ko amul dara luy lore ci àdduna lu dul ba na ko amul luy jëriñ ëllëg ci àllaaxira lu ba wax na ko amul lu cay lore tamit ba wax na ko discours boo xam ne saamila la bàyyiwul dara amul dara lu ba matale na ko waaye tamit boo jëlee arafa en tant que place mooy place bi nga xam ne aaya ji mujj wàcc ci alquran nga xam ne bi mu wàccee ba ni yonent bi sàngoo suuf aaya buy waxati def leen mbaa bàyyi leen wàccatu ci al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan boobu daal di aaya jooju nga xam ne dafay déclarer mat ak alquran ak ngërmandeg yàlla ci ñooñ alquran boobu moo tax benn labbe mos naa wax euh, Omar ibnu Xataab ne ko ñun gis ci seen téere bi aaya joo xam ne wallahi bu ko suñ téere bi amoon danañ jàpp bis booba muy feet Omar ne ko ñun xam nañ ko xam nañ bis ba xam nañ weer wa xam nañ place ba al yawma akmaltu mi ngi wàcc ci bisab juróom-ñeenteel ci weeri aj muy bis muy muy muy bis ba bis booba ajjuma la tombee woon nag mu ne ko place ba nag moom mooy palaasu arafa mu ne ko bis boobu ñun suñ feet la te xam nga bis boobu dafa tombeek feetu yahudi tombeek feetu nasaraan yi feet tombeek tamit feetu majuus yi ñuy jaamu safara loolu benn yoon rek la ma saxam bi àdduna sosoo ba léegi kon al oustaz Xasan arafa daal moo ëmb juróom-ñeent yi ma wax la ci en tant que mm. waaye nag boo ko jëlee en tant jamono nag moom moo moo ëmb fépp rek foo nekk rek mën ngaa dund arafa waaye fexeel ba abonné boo bëggee abonné nag il faut nga am réseau fa am réseau bi réseau bi mooy koor rek mm. boo wooree rek dugg nga ca wal fajri wala yaalil asri mu muy muy ñaari gëñ yoo xam ne yàlla gëñ na ko ci bis booba noona wal fajri gi moom kenn ko jaboo wala yaalil asri nag fukki fan yooya dafa dugalaale tamit bisab arafa ndax muy juróom-ñeenteel ba te oustaz Adi sax dogguma la waaye junju nga discours boobu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci bisu arafa mu nekkoon xajjatul wida waaye mu nekkoon euh, xutbatul wida mm-hmm. nga xam ne tey boroom xam-xam bi ñu ko jàngatee dañu gis ni mm-hmm. euh, moo garantil doomu aadama li ñuy tuddee droit de l'homme tey mm-hmm. yemul ci droit de l'homme waaye ñëw na ci droit de l'animal même jur yi sax jox na leen seen ak mbindeef yi jox na leen seen ak garab yi jox na leen seen àq euh, jigéen ñi jox na leen seen ak xale yi jox na leen seen àq yaakaar naa yooyu itam yu ñu war a mën a dundalaatee pour nit ñi war a xam ne l'islam projet de société la boo xam ne bàyyiwul dara xanaa kay dafa am lu bare bare boo xam ne ñun bàyyi nañ ko ci euh, ñu jëli lenn li moo tax euh, coono yi nit ñi am foofu Euh, al oustaz Hassan bi ma ne discours bi bàyyiwul dara luy jariñ rek dugal na lépp ba dugalaale yi nga xam ne yaa ngi koy souligner wax na ci wàllu animaux yi niñ leen war a respecter ak niñ leen war a xormaalee ak ni ñu war a dundee ak ñoom xataa wax na ci environnement bi li nga xam ne ñu ngi dund mu wëruñu niñ ko war a xormaalee ak niñ ko war a sàmmee xataa wax na ci xàq jigéen ñi ndax ñaar ñoo gën a néew doole ci société bi dañaan fekk société yëpp di leen néewal doole yonentu bi ne nañ leen delloo seen ak muy xale yi ak jigéen ñi bàyyi loo na ci xel loola ca discours ba ba discours bi jeex li mu wax rek mooy ne yow yàlla ndax jotal naa yow yàlla ndax jotal naa ba muy ñetti yoon saxaaba yëpp seedal ko ne ko wallaahi yonentu bi jotal nga yàlla nag seede ne ko tamit jotal nga ndax mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wallaahi bu matutoon yàlla du wax ne mat na kon li mat a tax tamit yàlla seedeel ko mat ga gis nga ba mu demee bay bëgg a génn àdduna lu mu wax israfil mi ngi maanaam asrail mi jël rooxo yi sama borom wakkii ko ko dafa ne ko ngëbal sama rooxo gi te seede ne matal naa kon lu ko yàlla yónni woon lépp mat na sëkk waaye nag aaya jooju di yow al yow ma akmaltu bi mu wàccee amatul benn aaya buy wàcc neen faratal leen nag bàyyi leen ak def leen ak nangam aaya bi mujj wàcce na alquran wàcc mooy wattaqu yawman turjaxuuna fihi ilallah suratu baqara nekk ci xisibu ka rusulu boobu moom bi mu wàccee ci laal quran mag sëkk dara wàccutu waaye al yawma akmaltu mi wàccee tamit tabaarakallaahu amul luy farataal ak luy sunnaal ak yu mel noona luy ñëwati moo tax aaya ji bi mu ne dafay waare rek moo tax kon arafa nag al oustaz Xasan ku ko wax sa xel daj suñu waajur wax Seydi Mouhamadul Amin dañ ko ci fàttaliku. Mm-hmm. ci taxawaay yu mat sëkk jëm ci daan taxawee mu teel a yee nit ñi ca Arafa parce que boo jàpp romb nit ñi ñu ngi jàpp wal fajri te ba tax na tey li ci jaaree ci ay sénégalais di woor bisab Arafa maanaam grâce yi ni Mouhamadul Amin ñooñu kenn xamut ñu ngi toll. yàlla day def ñaareel sunna sum def léegi léegi dañ toll jamono joo xam ne sunna su day mel ne luy nelaw nit ñaa koy romb rek te duñ ko seetlu gannaaw si gi nag dana am jaami yàlla yu muy yenkiwal ñi xee sunna soosa comme tey xam nga salaatu tasbiix julli gu ama am doole xool li ci yonent bi wax ci ngëneel ba mu koy jox Abbas waaye dafa mel dañ ko bàyyi woon muy nelaw rek ci ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri waaye bàyyi Ibrahima Sakho la yàlla jagleel mu ñëw yee ko woote ko ci mbooloo defal ko foofu ci Madinatul Munawwara nit ñëpp mujj amaat ci ak yeewu amaat ci ak fonkeel ba tey ñi koy woote kenn xamut niñ toll ñi koy ñi koy julli tamit ci fii Sénégal ak fulul Sénégal kenn xamut niñ toll grâce bàyyi Ibrahima Sakho waaye tamit gi ngëneel lu rëy la yu màgg Sénégal yi waaye dafa mel dafa doon nelaw rek ñenn ñenn rek nga daan fekk ñu koy xoor waaye bi Seydi Mouhamadul Amine ñëwee taxawaay bi mu ci am di ko fàttali nit ñi di ko xemem loo nit ñi di ca def waaraateen yooyu nga xam ne dafay jooyloo nit ñi te moom lay njëkk a jooyal tax na ñu bëree bëri fàttali ko at arafa koo dajeeg mu ne la kañ la arafa bu weer wi taxawee kañ la arafa dama ko bëgg a woor waaye loolu lépp ci taxawaayu Seydi Mouhamadul Amine kon bu ñu taxawee tey fii ci Walfadjri te daaw ci waxtu wii maak yow yëpp ña nga taxawoon tey ca Arafa lëkkaayoo suñuy armal tabaarakallaahu nga may laaj may tontu ci li ma xam di joxe ñaan nga Sénégal yu bari ak ñu dul Sénégal ñëw wër ñu ba mujj foofu mujj soppeeku ab jéew tàllal seeni loxo ñoom tamit ci ñaan nga doon ci jéem a huutu koo xam ne kenn mënu koo huutu ndax maa laa leen sarif la. ànd ak taw sax. am ah, mu ànd ak tamit ñu dem ba ci kanam mu tàng lool ba ci kanam muy taw dëgg dëgg Alou Sass Xassane dañu ñaan yàlla. yokk leeru suñu waajur wu tedd sa yàlla defaat ci buña ndax bu fekk Sénégal dafa amul maral waaye mu taw encore mu jaaree ca taw rek waaw yërmande yàlla ji moom bu bu feeñee rek day feeñ ci lépp alisa sasan mm-hmm. kon suñu waajur woowu tamit mm-hmm. yàlla na yàlla taw ci euh, raw doom ba niiru ngërmande ak niiru yërmande mm-hmm. waaye njaboot gi mu bàyyi fi Cheikh Mouhamadul Hafiz tamit jiite leen yàlla yàlla teg leen loxo yëkkati wal sàmm ko yiir ko aar ko sàmm njaboot gi ci moo xam njabootu biir gi ak njabootu biti gi yëpp ci yàqkat yi ak saytaane yeeg musiba yeeg balaa yeeg yëpp yàlla nañ ci mucc ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam al oustaz Hasan jërëjëf oustaz Adi euh, xutba boobu ñu doon wax ba léegi oustaz Adi laa bëggoon sax ñu taxaw ci ay euh, ay ay mm-hmm. ndax ci biir xutba boobu yaa ngi dégg yonente bi sallallahu alayhi di wax ne ayuha nnaas inna dimaakum wa aaraadakum xaraamun alaykum ila an talqaw rabbakum ka xurmati yawmikum haada mu mel ne tey yooyu ak suñu société bi xaw na joonoo dimaa akum waaw ngay xool li nga xasan li nga liir nii yonent bi wax ko mooy ne li mu njëkk a xamal nit ñi koy déglu mooy deret deret dafa am solo mu ne maa ngi leen xamal ne seen deret yi yàlla xormaal na ko ni mu xormaalee seen bis bi tey ni mu xormaalee. place bi fii shahrikum hada waaye tamit ni mu xormaalee seen weer wii tey di weeru tabaski. fii baladikum waaye ni mu xormaalee seen dëkk bi di makkatal mukarram xam nga weer wi xasan dafa bokk ci weer yi aj yi. Mhm. di alxaju asfurul maalumaat woor yi digg tabaski. waaye dafa bokk ci asfurul xurum yi. Mhm. di weer yi nga xam ne ki jamonoy jaahiliya sax kenn mosu cee xeex. Mhm. yàlla yonent bi nag ne kon ni yàlla xormaalee weer wi xormaalee ko bis bii. xormaalee ko place bii noonu la xormaalee tamit seen deret yi xam nga wax al ustaas xasan lislaam dafa ñëw di wattu ñett dafa ñëw kon di wattu juróom mhm. lislaam diina la ju ñëw di wattu bakkan yi moo tax bëggul ku rey nit bëggul ku tuur deretu jàmbur looloo waral mu yoonal xisaas ne ku rey rey leen ko mënu leen fay jëlee rey ci lu dul rey mhm. wala comme fil xisaasi xayaatun waxul wala comme xayaatun fil xisaasi mais wala comme fil xisaasi xayaatun waaye gis nga ko timit mu ñëw di diina joo xam ne dafa ñëw ngir wattu alal yi moo tax mu xaraamal sàcc ne ku sàcc dagg leen loxo ba ci wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma waaye di di diine joo xam ne dafa ñëw ngir wattu askan yi moo tax mu xaraamal njaalo ba ku ko def bu sange woo rey leen bu sange woo nag dóor leen ko téeméeri yar ba ne azaniyatu wazani fajlidu kulla waahidin minhumaa mi'ata jalda waaye tamit muy diine joo xam ne dafa ñëw ngir wattu der yi moo tax mu xaraamal xaste mm-hmm. gaaral nit ki génne ko ci askanu baayam mag ya ci haju baa nga ko ay gaaral dafa ne ku ko def caw leen ko juróom-ñetti fukki yaar waaye diine la joo xam ne dafa ñëw ngir wattu xeen yi moo tax mu xaraamal naan sàngaraat doroge xoog yeneen yi ci haju yëpp nag ku la wattul juróom yi boo xamee jom wattu ko ku la sa sa bakkan wattul la sa xalal wattul la sa der wattul la timit sa askan wattul la sa xel mi boo xamee jom war koo waxtu moo tax ñu koy tuddee xam xams ci xam-xamu mantiq danañ ko tuddee tamit kulliyaatu sit maanaam boo ca boolee niñ ko waree wattu moom tamit diine ji kon xasan waaye gis nga kulliyaat yooyu ba ca yonent bi taxaw njëkk koo cité mooy mooy deret mooy bakkan na xam ne tamit mooy limoom moom la yàlla njëkk a atte ëllëg buñ teewalee jaami yàlla yi te xam nga fi mu toll nañ jamono joo xam ne nit ñi rey mellentaan ak rey bakkan la ñeemale amul benn semaine booy dugg ci réew mi ba mu jeex te dégguloo ay bakkan yu ñu na jabaram ja wala jabar ja de rey na jëkkër ja wala doom ja rey na baay ja wala baay ja rey na doom ja wala diw rey na xaritam ba wala rey na mbokkam ma ci yoo xam ne boo ko toppee yu ñàkk a ñàkk ñàkk fayda mën na bañ a téeméer mën na du doon du doon dara hmm. xëccoo weccet juróomi dërëm ngeen rayante ci moo tax yonentu daana wax ne mu jëg jamono ngi ñëw dana bëri ku ray koo xam ne du tax dana rey sax mais xamul tax mu rey du tax moo tax mu rey dana bëri ku ñu rey sax moom ci boppam tamit du tax du tax mu xam lan la def bañ ray ko foofu lañ toll fu mu ci ji jamono mm-hmm. kon rayante gi daal ni mu mel ak ni ko yonent bi teelee bàyyi xel ba muy joxee discours ba bi mu njëkk a cité ci discours bi bokk na ci deret mm-hmm. nañ nañ ko wattu nañ ko xormaal kon lañ ci bàyyi xel bu baax a baax xasal mm-hmm. te Oustaz Aly boo jukkaatee feneen ci xutba bi da ngay dégg mu ne la amma baadu ayuha nnaas hmm. inna li nisaaikum aleykum xaqa wa lakum alayhinna xaq hmm. waaw loolu tamit biir kër yi la dugg bi yoon boobu dugg na ci ñaar ñu gënoon a néewal doole mu tudd kenn ka mooy jigéen ñi hmm. ne yéen jëkkër yi yéen laay wax ak dama bëgg ngeen bàyyi xel ne seen soxna yii dañoo xam ci yéen xaq ñoom tamit dañoo xam ñoo yéen tamit xam ci yéen xaq kenn ku ci nekk nag na góorgóorlu ba matal xaqi moom hmm. sa soxna si xaq la ci yow nga dëkkal ko xaq la ci yow nga dëkkoo ko xaq la ci yow nga wodd ko xaq la ci yow bu feebaree nga faj ko xaq la ci yow nga nga nga koy lay biir fexe mottali diineem moo tax yàlla la mu waxoon aadama rek mooy xuquuq yi mujj del ci moom mooy yaa aadama uskun anta wa zawjukal janna yaa aadama uskun anta boo ko jëlee rek mooy xaq yi nga xam ne góor gu nekk amel na ko jabaram boo jëlee hamsa gi asan muy uskun mooy alwatu yaa alquran ne nisaaukum kom lakum faatu xarsakumoo annee shiitum boo ci jëlee uskun lu ko tegu gannaaw hamsa gi mooy siin mooy sukkunaa ku yor soxna yaa ko war a dëkkal moom la alquran ne na min haysu sakantum beneen bi ci tegu mooy kaaf gi mooy kiswa ku yor soxna yaa ko war a waddu wa alal mawludi lahu na wa kiswatuhunna bil maaruf waaye tamit beneen bi ci tegu nag mooy nuun gi mooy annafaqa ku yor soxna yaa ko war a dundal li yunfiqu du saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu llah waaye nag kon uskun jeex na mu des anta gi anta gi nag mooy ahamsa gi moo ci njëkk mooy an nasihatu ad diinu an nasiha diine laahi biir la waaye laahi biir gi ci jiitu nag nga ko ci sa bopp ci say soxna waaye geneen gi ci tagu nag kon mooy mooy mooy maanaam am sa gi kon am sa gi alif gu njëkk mooy addawa bu feebaree nga faj ko jënd garab ya ordonnance la ca waju la ca war nuun gi nag mooy nasiha taa gi nag mooy takrim ndax maa na illa karimun wa maa na illa laimun juróom-ñaari xaq yi la yén la la la la sunna saxal ne ku yor soxna war nga koo bàyyi xel jox ko ko ba mat sëkk ci dëkkal ko ci dëkkoo ko ci wodd ko ci dundal ko bu feebaree nga faj ko di ko laayi biir te di ko teral juróom-ñaar yi xasan mooy tolloo xarafi uskun anta usal xasan kon yonente foofu dugg na ci biir kër yi mm-hmm. waaye fii tam mu ngi wax ne fala tarji'unna ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd mm-hmm. fa inni qad taraktu fiikum ma in axastum bihi lan tadillu ba'di kitaaballahi wa sunnati mooy bi may ñëw dama leen a fekkoon ngeen ay xéeféer yàlla di ma dimbale ma leen di di leen gindi ba ngeen tegu ci yoon wu leer naññi wii di yoonu lislaam waaye ngel la bu ma leen wen gannaaw ngeen delluwaat di ay xéeféer encore di jëfati jëfi ceddo di wax waxi ceddo di jëflante jëflante ceddo wala koo xamee ne ni bu tànk yi nekkee ci biir lislaam tamit xol ba ak la ëpp ca jëmm ja ma ma ca ma ca ma ca ma ca ceddo ga mm. kon fexe leen ba bu leen delluwaat di ay xéeféer ci laa leen fekkoon jëlee leen ci indi leen ci yoonu lislaam kon bu bu ma wanee gannaaw rek ngeen delluwaat ci la ngeen nekkoon loolu nag bu ngeen ko bañee bañ a delluwaat maa ngi demee bàyyi naa leen nag su sama sunna bu leer bii wallaahi bu ngeen ko toppee du ngeen du ngeen sànku du ngeen sànke waaye bu ngeen bàyyee sunna bàyyi fi alquran kenn mënul leen a tere yàqule kon ñaari source laa leen bàyyee kitaaballah wa sunnati ñaar yii nag jàpp leen ko ba mu dëgër xam ne ku ko jàpp jàpp nga lu dëgër su boobaa day laaj nag yow nga jàpp mu dëgër rek boo amee lu dëgër ngay jàpp mu dëgër boo jàppee mu dëgër nag yow su boobaa rek. lu coow li mu dëgër dëgër boo jàppalee mu dëgër itam. waaw da ngay yàqule. Mm. bu mbir ma fippoo rek bàyyi la fa. Mm. kon ku bañ a sànku bañ a delluwaat di kéeféer gannaaw yonantu bi ñaar la fi bàyyi ci tegtal kitaaballah wa sunnatuhu mooy téeréb yàlla bi ak sunnaam si moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko topp lu jamono yàqu-yàqu doo sànku ku bàyyi ñaar ñii da nga sànku kenn mënu ci dara xasal mm. mu mel ne itam dafa bëgg wax ak société bu yaatu bi ndax fii mu ngi wax ne ayuha nnaas inna rabbakum waaxidun wa inna abaakum waaxid kullukum li aadama wa aadamu min turaab inna akramakum inda allahi atqaakum wa laysa li arabiyin ala ajamiyin fadl illa bi taqwa xasan loolu dafay discours bi dafay delluwaat ci bennale jullit ñi mhm. bañ leen a bennale wane ne dama bëgg ngeen bennoo mais dama bañ tamit ngeen bennoo bennoo gii ma woo leen man yàlla dimbalee naa leen ci juróom li ci des nag yéen dimbal leen ko seen bopp dimbalee naa leen ba yéen a bokk benn cosaan soqe ko ci benn matière muy nit matière am nit ngeen bàyyee ko muy aadama aadama bàyyi ko ci matière suuf koo amul ku mën a nekk nit te sëñ Abdullah dafa daan wax ne ñu ne ko nit mooy lan mu ne mooy ku bopp ba nekk ca kaw tànk yi nekk ca suuf tant que nit nga rek mënoo génn ci matière ab suñu maam aadama aadama tamit bu ñu ko dàqee mu dellu ci suuf kon mu dee yaayoon naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waahida nafsu waahida booba nag muy suñu maam aadama kenn mënu koo génn waaye tey xam nga su fekkoon ne tey ñii dañoo génne ci matière wu malaaka ñii génne ci matière wu jinne ñii génne ci matière wu nàngam kon man nañoo commencé di bàkkoo ne maa la gën ndax maay lii maa la gën ndax maay lii loolu moo dal iblis ndax dafa taxaw dafa gis ne moom aadama bokkuñu matière bu ñu génnee moo tax mu ne ko xalaxta nii min naarin wa ko min tiinin yàlla ne wa qaala faxruj minha fa innaka rajim waaye ñu nag tey amul kenn ku mën a génn ci matière am nit muy suñu maam aadama yàlla ne maa leen dimbalee loolu ci bennoo gi kullukum min aadam wa aadama min turab kon xamatul kenn ku mën a bàkkoo ci ci maa la gën a maa la def nangam ak nangam lay lay tax nit di gën ma nga ca kanam dana ko wax ci la jeexalee xadis bi kon yéen ñëpp ci aadama rek moo tax yonent yàlla Isa dafa mos a toog am benn nit ku ñuul ku ko féetee ndeyjoor am benn nit ku weex ku ko féetee càmmooñ benn waa ju raciste ju xees ñëw rek ne ko ñaar ñi tiim la ku ci gën yonent yàlla Isa tibb ci loxoom ndeyjooram suuf tibb ci loxoom càmmooñam suuf ne ko ñaari suuf yi bu ci gën mu ne ko noo xaw ma ko mu ne ko man tamit ñaar ñi xaw ma ko ndax kilaahuma min adam wa adama min kon yonent bi li mu njëkk a dàq mooy wàllu raasoo ak wàllu waaso te bari na guerre yu takk ci àdduna bi ay millions yi nit dee ca boo ko toppee raasoo waaso mun leen ko nag yéen arab yi seen xonqaay bi bu mu leen jay ngeen ak yéen a mën a niroo ba tax ngeen foog ngeen a gën nit ñi yéen ñu ñuul ñi seen ñuulaay bi niroog kaaba gi niroog mbindam alquran mi ci waxin bu mu leen jay ba ngeen foog ne yéen a gën ñu weex ñi waaye xam ngeen ki gën kan la ki gën a ragal yàlla hmm. gën a topp santaane yàlla yi gën a jub kookaay ki ragal inna akramakum indallahi atqaakum hmm. kon yàlla ne maa leen dimbalee ci bennoo bi ngeen bokk benn soqeekuwaay muy aadama muy nafsu waahida hmm. ñaareel bi dimbalee naa leen yéen ñëpp ngeen bokk benn diine muy inna diina indallahi al islam waaye ñetteel bi dimbalee naa leen diine jooja ma wàccee ci benn téere su fekkoon ne ngaa jàng téere bi ma jàng téere bi ma nañ ca nekk bàkku mais nag inna haadha al qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashiru al mu'minin ñoo bokk benn téere ñetteel bi ñeenteel bi danaa leen dimbale ki leen di jàngal téere benn professeur lay doon kam nga bu suñ professeur yi wutee woon Adama jàngal la kii Iisaa jàngal ko kii yonent yàlla musaa jàngal ko mais yéen nag yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jami'an muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye beneen bi tamit yéen ñëpp yéen a bokk benn xeet inna ko ummatukum ummatan waahida kon xasan yàlla bi ñu santee ñi bennoo tere ñu ñu bennoo dafa ne danaa leen ci dimbale juróomi organe mhm. danaa leen dimbale yéen ñëpp ngeen bokk benn soqeeku waaye muy bu nit mhm. dimbale leen ngeen bokk benn diine muy lislaam mhm. dimbale leen ngeen bokk benn téere muy alquran dimbale leen ngeen bokk benn professeur muy Seyduna Muhammad dimbale leen ngeen bokk wenn xeet muy ummata saydina muhammad mi nga xam ne mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari la ca des nag ko xam juróom yi nag wax dëgg yàlla la ca des nga mën koo sa bopp te foo ca fekk rek bakkan a fay des nga xeex moom mu jeex boo xeex ak bakkan xeex seytaane xeex ak man mën ngaa fexe ba raasoo ak waasoo yi di yàq àdduna yeneen bi bàyyi loo ko xel ci discours bi loolu da nga ci mën a mucc ak sax mu ngi mel ne discours arafa bi daal képp ku bëgg a def discours ak sa nation. mënoon nga tibb discours boobu rek nga dal di ko répété waat mu doy sëkk xoolal rek fii mu ngi wax ne amma baad ayuha nnaas mm. inna cheytaana qad yaisa an yubada fi ardikum mm-hmm. haadihi mm-hmm. walakinahu qad radiya an yutaa fi ma siwa dalik mimma mm-hmm. taxriquunahu min acmaalikum faxdaruhu wane na ne rek ku yàqule xasan seytaane moo la yàqal as seytaanu yaidukumul faqra wa yaamurukum bil faxsaa inna haada aduwun laka wa li zawjika falaa yuxrijannakuma min al jannati fa tasqaa inna seytaane aduwun lakum kon li mu njëkk a taxaw déclaré ko mooy ne benn noon rek nga naan bàyyi leen xel ci seen noon boobu ci te moom noon boobu tamit du tekki ngembam mukk fekk yàqulewu leen feeg yàqulewu leen du tekk njabam man nag dimbale naa leen ci ba ngeen mukki ci moom moom naagu na ne kenn du ko jaamooti fii tey ci du ci dunaar al yawma ya'isa lasina kafaru min diinikum jooja lay lay junji aaya ja kon nag falaa tax sa wax sa al yawma ya'isa lasina min jooja mooy saytaane naagu na ne tey fii kenn du ko kenn du ko fi jaamoo kenn du ko fi jaamoo waaye xam nga li tax yonent bi wax mm-hmm. bi yonent bi xarmalee xasan ca Zul Xulayfa li xarmal ci gannaawam ëpp nañ juróom ñaar fukki junney saxaaba yonent bi ne labbayka laahuma labbayka saxaaba yi topp ndor la ka labbayka laahuma labbayka ba seen labbayka yooyu waa asamaan ñu ko doon dégg ci la yonent bi ne al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum hee saytaane nag keroog ba ngeen tuubee jënd carte de membre julli julli juróom yi di xoor weeru koor joxe ngeen asaka xaj ngeen makka lépp taxut mu naagu ne dana leen yàqal waaye tay nag lay door a yaagu tay lay door a naagu ne tey moom yëg na ne yéen moom weesu ngeen a yàqale mënatul ci yéen daara mënatul ko ci yéen waaye waaye kon nag bu ma wanee gannaaw bu ngeen delluwaatee jëlu leen saytaane muy seen seenam noonu dana leen dugal ci jëf joo xam ne bu baax te man du ma ko gërëm yàlla du ko gërëm te da ngeen ci joxe tamit yéen ñëpp ngeen yàqale loola nag mooy xasan boo gëmee ne yow benn noonu nga am muy seytaane man ma gëm ko keneen gëm ko rek danañ ci waaye saa yoo demee ba saytaane gëm loo ne sa jabar ji mooy sa sa doom ji mooy sa noon sa mbokk mii sa noon la sa nàngam mi sa noon la nga bëri ay noon ba fàtte ko moom mu liggéey ci yow nag ba lu mu bëggoon a def yëpp mën ko def buñ gëmee ne benn noonu lañ bokk ñun ñëpp war a xeex moom muy saytaane rek yàlla mën nañoo dimbale bañ a ko waaye moom bu ñëwee la muy njëkk a créé mooy wutal la yeneen i noonu ci sa biir sa sa biir yi sa sa biir mbokk yi ci sa biir yi xarit yi sa biir yi àndandoor yi nga tal ñooña ba doo ko talati la mu bëggoon a def yëpp nag mu mën koo def xasal mm-hmm. mm-hmm. jërëjëf mu mel ni itam loolu am na solo lool te mooy suñu xo euh, feebaru société bi tey. Mm-hmm. mu ñëwaat tam euh, waxaat beneen mbir boo xam ne mbiru jëflante la ci wàllu alal. Mm-hmm. ayyuha nnaas. Mm-hmm. innama nnasiu ziyaadatun fi lkufr. yudallu bihi alladina kafaru. yuxilluunahu aaman wa yuxarrimuunahu aaman. yéexe gi dafa am lu ñu tuddee riba. nasiya riba ñaar la. dafa am lu ñu tuddee ribal fadl am lu ñuy tuddee riba nasiya. dafay am ci riba goo xam ne ndollal moo ko tax a xaraam lebal la dërëb nga fay ma ñaar dërëm lebal la cinq mille nga fay ma dix lebal la benn saakoob dugub nga fay ma ñaari saakooy dugub mboq maak ceeb baa yooyu yëpp kooku mooy ribal fadl hmm. am riba boo xam ne nag nasi àlla ba ñu ndollal mais yéexee lay bañ bu xeet ya bokkul rek mën nañoo ëppalante mais bu mu yéexe mooy ne bu ma la joxee tey CFA nga jox ma euro taux boobu di ca dooleeku dara nekkul ca waaye fexeel bu mu yéex de ya dan bi yëddin rek donte nekkul mislan bi mislin mais nag boo ma joxee rek naa la jox ñoom nag dañ naan def riban nasiha ah ci weer yi bu weeru aj gi ñëwee tombeeg foo xam ne arrangé wut leen ñu toxal ko fo di indi ko foo xam ne fu leen arrangé la mbir ma nag di toxalu di wërngalu di wërngal waat ba del si ci jamono ji yonantu bi ñëwee mu ne nag ba bàyyi àdduna bi tukki kenn na dootu ko toxalati waaye ñoom dañ naan def comme li xew rek boo eh, nit ki jabaram am doom par exemple kañ la ngénte lii nga ne bis bu bu dellu si nga ne non dama ko bëgg a réyal sama mbokk yee ndax duñ mën a a mën a daje nga ne naa ko toxalaat ba mu dellu siwaat toxalaat mu dellu siwaat ak ni nga ko bëggee nga ne naa ko toxalaat noonu lañ daan toxalee weeri aj yi daan toxalee bisab xarafa bi daan toxalee tamit weer yooya ba mu di ko toxal di ko toxal muy wërngalu ba dellu siwaat nag ci fi mu dellu siwaat toon doon kasaan la tombeek aj ak yonent bi nag ci la wax ne nag ba yowmal xiyaam dootul toxooti ba yowmal xiyaam moo tax xarafa jekku nañ jekkuwuñ tey kenn mënta tere tey di xarafa xasa kenn mënu koo tari hmm. gis nga corona bi ñëw na waaye de mënu fay jëlee xarafa ji de lu teree xarafa nekk fa mu neexoon de lu teree tamit bis ba nekk fa nekkoon de lu teree place nekk fa mu nekkoon de bu ñëpp mënul taxaw dana am ñu fa taxaw wuutu fa ñëpp sa sa Hasan hmm. waaye tamit du teree tamit bisu xarafa bii tey nga ne moom laa xoor yow nga xoor ko keneen xoor ko lu ci lu ci corona bi man lu ci saytaane man dara tuus la ci mënul kon nag loolu la yonent bi junj foofu ca euh, nis na nasi ak yi ko ñoom lañ daan amee riba nasi a ci jëflante yi noonu lañ ko daan defee tamit ci weer yi al oustaz Xasan hmm. te xutba bi li tax mu am solo oustaz Adi ndax fi mu ko ubbee dafa mel ne xutbatu xutbatu widaa la woon daf doon tàggoo tàggoo waaw parce que am na fu mu wax ni sax uusikum ibadallahi bi taqwallahi wa axussukum ala taatihi wa astaftixu billadi huwa xayr amma baadu ayuha nnaas hmm. ismacu minni ubayin lakum fa inni laa adri laalli laa alqaakum baada aami haada fi mawqifi haada mooy tàggatoo gaa ngi noonu mooy yéen jaami yàlla yi usikum bi taqwallah yàlla bii li ma leen di dénk daal menn mbir rekk la mooy ragal yàlla da dé ragal yàlla laa leen dénk xam nga al tukki mii ñuy tukki jëm àllaaxira ragal yàlla rekk moo fa mat yóbbal te ragal yàlla mooy caabi joo xam ne li nga bëgg lépp mën na la boo demee ke taayatu suluk dafa ñuy wax ragal yàlla caabi yu muy hubbi mu ne ragal yàlla moo la mën a hubbil xam-xam muy xam bi yër ci wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal yàlla moo la mën a hubbil xam-xama bi yër in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan ragal yàlla moo la mën a hubbil wërsëg wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarsuquhu min haythu laa yahtasib ragal yàlla moo la mën a hubbil wilaaya wa maa kaanu awliyaawu in awliyaa il muttaquun ragal yàlla moo la mën a hubbil mucc ci say noon tëjal la bunti noon yépp wa in tasbiroo wa tattaqoo laa yadurkum kayduhum shay'an ragal yàlla moo la mën a hubbil mujj gu rafet wal aqibatu lil muttaqin ragal yàlla moo la mën a musal ci safara wa sayujannabuhal atqaa waaye ragal yàlla sax mooy tax nga mën a dugg xal jànn eh, waaw boo jël xal jànn lil muttaqina lan la yàlla di wax foo ko fekk mu ne bu ne xal jànn mu ne lil muttaqina kon xasan hudan lil muttaqina demet ba ba yëpp jeex kon yonent bi ne du ma fi nekk dénkaane lenn ragal yàlla dong laa leen dénk ndax bu ngeen xamee ragal yàlla xamaa leen lépp su ngeen ñàkkee ragal yàlla ñàkk lépp lu mu ca teg ba mu waxee loolu mu ne maa ngi leen di ñaax wa axafukum ala taatihi hmm. maa ngi leen di ñaax ci ngeen topp yàlla parce que ragal yàlla li koy firndeel mooy topp ko mooy def santaane ya bàyyi tere ya hmm. waaye boo ne damaa ragal yàlla buñ ko tuddee ngay karkari mbaa ngay daanu mais la yàlla santaane defoo ca dara la mu tere bàyyi woo ca dara ragaloo yàlla jaan ci jiwaayul maani lan mooy taqwa dafa ne mu ne imtisaalul awamiri wa jitinaabu nawaahi min haythu yarda la min haythu tarda seex hmm. mu ne ragal yàlla mooy def santaane yàlla yi bàyyi tere yi ta defee ko na yàlla bëggee bañ koo defee moo tax bi yonent bi ne maa ngi leen di dénk uusikum bi taqwallah wa axusukum lam ca teg ala taati maa ngi leen di ñaax tamit ngeen topp yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye gis nga avant discours bi jeex dafa nekkat discours bii ma leen di jox man naa xam dootuma dajeeg yéen ci place bii di leen ko joxaat moo tax ñu tuddee ko maanaam xutbatul widaa waaw di ko tuddee tamit di ko tuddee xajatul widaa hmm. mooy discours ab tàggoo ba mais mooy tamit ajak tàggoo ga ndax aljuma akmaltu lakum mu ngoog loolu taxoon ba ba ba laaya ji wàccee ak aj ji yontu wax lii hmm. saxaaba yu bëri dañoo jooy mission bi xam ne mission bi mat na li ko fi indi woon mooy mission bi mission bi matee jeex na ku mel ni Omar dafa jooy ku mel ni Aboubacar moom mu ne mu ngay sant yàlla bu baax ndax lii yàlla dogal na mat na te dara yàquwut ci moo Omar moom déggee ne comme kay mission bi mat na yonent bi moo fi baxee koo rek loolu moo ko fi indi woon ku sa mission mat nga baxee koo fi hmm. kon euh, discours bi daal wax na ci animaux yi wax na ci xale yi jigéen wax na ci jëflante yi ci wàllu ci wàllu alal yi wax na ci wàllu riba wax na ci wàllu paspas pas yi mm. wax na ci wàllu jaamu yàlla gi mm. wax na ci wàllu social mm. amul dara dara dara luy jëriñ doomu adama ci dundam lu dul ba discours bi wax na ko ci bésu arafa ci amul dara luy lor doomu aadama ci dundam bii mbaa dundam ëllëgam ba lu dul ba discours bi wax na ko moom ñu toog kuy defati discours moo xam njiitum réew nga. jukki ci biir moo xam ilimaan nga moo xam ab sëriñ nga danga nga cay jukki dara rek. joxe dëppoo sa société rek nga def. waaw waaye lépp sax lépp dëppoo naa société yëpp. kenn ku ci nekk na yaay jël la dëppoo sa mbir rek. sa mbir ci ci biir at moom ak ci biir. waaw ca man waaye moom discours bi bàyyiwul dara. discours actualité la ba bay àdduna bi tukki. amul lu mu ci wax luy xewi. amul lu mu ci wax luy sàppi. amul lu mu ci wax luy primé. lépp lu ñu mën a consommer la ki jamono ju nekk xasan ba bay àdduna bi hmm. kenn ku ci nekk ne yaa cee tibb rek la nga ca soxla nga joxe ko boo léegee nga tibbaat la neen hmm. te gis nga yonent bi dafa fasaa ci ñoon a discours hmm. te na foo xam ne bëgg naa nga taxaw fa ci discours bi ndax dafa bari lu mu ko ci répété bu waxee ba daaneel benn phrase rek mu ne alaahal ballaxt ndax est-ce que jotalu mooy af allahuma fasaa waaw xasan dafa wane njiit ni mu war a def njiit lu nekk population am ñoo ko war a seede balaa seede boppam ay mbokkam di ko seede ay soppeem di ko seede na na def micro trottoir rek moo tax yonent bi dafa seedeeloo jotalam gi ñañ ko yónni woon te ñoom ñoom lu mu wax rek ne leen waa dama leen laaj yéen ñi ñu yónni woon ma ci yéen ndax jotal naa ñoom ñëpp ne ko jotal na waaye tamit lu mel ni maa kaana li nabiin an yakuna lahu asra xatta yusxina fil ard ci piruse yee yañ jàppoon xare Badar mbir ma tàng na mook Aboubacar ñu bokk position Omar ibnu Xataab wuuteeg ñoom position alquran ñëw ànd ak Omar wuuteeg ñoom ñaar ñële ñii jooy Omar ñëw seet leen waaye lu ngeen di jooy wax leen ma ko su ma ko mënee jooy su ma ko mënut jooy jooylu mu ne ko yàlla de billaahi bu taxutoon a yërmandeem tëkk nañu ci safara lu toll ni fii waaye xool loolu ni mu tànge ni mu méttee waaye tereefu yonent bi da ko joxe waaye xul yàlla kaafiroon ko gën a tàng yonent yàlla Moussa li muy nekk nekk jàmbaar kenn nit rek lañ ko yónni idhab ila firawna innahu taxa mu ñaan yàlla renfort ñeent wa jaal lii wasiran min ahli haaruna yàlla ne ko danaa la ko defal mu ne ko wa rabbi israh lii sadri sama dënn bi laa bëgg nga hubbi ko mu ne ko waaye hubbi naa su dënn bi demal mu ne ba tey du mën a dem de waxlul waxlul xoqdatan min lisaani sama làmmiñ laa bëgg nga fecc ko ba ma man la may wax ak ñoom nit ñi mën koo dégg mën koo conseil waaye yooyu yëpp yàlla ne ko a Moussa xadd uuti ka su laka yaa Muusa li ñu doon laaj yëpp jox nañ la ko demal yonentu bi nag bañ koy yónni ñi fi neexoon kenn ku ci nekk presque ci ay kàngaam yaa ngi yore doole firaaw na ci amee caay-caay ga amee pexeem ya yàlla ne ko yow nag waxuma ne waaye xul yàlla kaafiru na xéeféer yi yëpp laa bëgg nga wax xéeféer yëpp moom kenn presque moo gëm boppam mu taxaw joxe bis ko ne qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu ma taabudun foofa foofa la njàmbaar mën a xem boo demee la ca ruuxul bayaan wax sax kenn mënu koo kenn mënu koo wax ci ci ci ci ya waaye kon gis nga ko xasan kon loolu bu ko mënoon nëbbu nëbbu ko waaye ñu ne bu mënoon nëbbu tamit qul a'uudu bi rabbil falaq mbaa mu mën nëbbu qul a'uudu bi rabbin naasi mu nëbbu ko waaye mbir ma lu mu tàng tàng tàng tàng dafa koy joxe moo tax boo demee jalaal mu ne ñetti xam-xam lañ wàccee ci yonantu bi benn bi dañ koo sant ne ko bu ca nëbbu dara bu ca ci dara ñëpp a ci xem jox ko ñëpp kooku mooy alquran ak ahkaam yi laaj ak lépp luñ ko laaj mission loola moom yàlla dogal na joxe na ko joxe joxe joxe ba yàlla ne mat na ci al yawma akmaltu lakum diinakum beneen bi nag dañ na ko kenn xattanu ci lu toll ni benn tomb benn xaraf koo ko ci jox mu ruy kooku mooy sirul qadri bu ca joxe dara nëbbal lépp kooku moom ñaareel fu ko alquran di waxee da ngay dégg mu ne maa lay indi maam ibuham fa awxa ila abdihi ma awxa maa yooja la kooku mooy maamu xam loolu nag loolu mën na bu nag moom ak boromam la ñun xattanuñ ko kooku mooy sirul xadri dañ ne ko bu ta joxee dara beneen bi nag mooy mooy xam mul xaqiqa dafa koo caa tànnaloo ba ngay dund bu la neexee joxeel ku la neex gannaaw bu sa bu sa rooxo gi teqalikoog sa jëmm ji te nekk ci beneen mission feeñul ku la neex nga jox ko ca lu la neex looloo waral ba muy kat mu jëloon ko mel ni Abi Hurayra jox ko ca la ko neex bam naan jëlee naa suma soppi bi ñaari gafaka ñaari mbuusi xam-xam waaye hmm. benn yu lil naa leen ko ba mu jeex benn bi su ma leen ci yulli loon ngeen dagg sama boli bi bii dafa ne xulqum bii mu ne balxum boo jëlee ci riwaaya muslim ak buxaari yi ñoom ñaar luñ benn kii xulqum la andi kii indi balxum bañ soo ko tamit jox na ko ku mel ni Seydina Aliyu jox na ko ci xeeti xam-xam ne jëlee naa sama soppe bi xam-xam yoo xam ne su ma koo waxoon ngeen ne man damay jaamu xirab moo tax yooya du ma ko wax waaye gannaaw si giti bi yonent bi feeñu na jaayu bëri imaamu Xasali imaamu Suyuti Abdul Qadir Jaylaani Cheikh na Ahmad Tijaani si Ahmad Bamba Xaadimu Rasul Mawlaay Haaji Abdallahi Ñas Seydil Haaji Malick Maam Khalifa Ñas Cheikh al Islam Haaji Ibrahim Alhaaji Omar Ndaw Alhaaji Amadou Dem Alhaaji Abbas Sàlla góori yàlla yu tedd maam yi maamu laay ja jagleel leen lam leen jagleel loolu nag moom mooy ilmul asrar ilmul xaqiqa ilmu ba xam ne moom la mutasawifuna yu bari di dund yooya moom ku ko neex ak na mu ko neexee moo tax ñetti xam-xam yi ma wax ne moom lañ ko jox lii ma wax boo ko bëggee wéy di demal seeti tafsirul jalaal da ko ci fekk mu waxee la ko noonu ci yaa ayyuha rasulu balligh maa unsila ilayka min rabbika dana ko ci indi demal nga seeti tamit tafsirul qurtubi da nga ko ci fekk demal nga seeti maanaam ahkaamul quran boo demee da nga ko ci fekk demal nga seeti maraaxi tafsiru maraaxi da ko ci fekk demal nga seeti tafsirul xaasin ñetti xam-xam yëpp da lay détaillé ñeen ñu ne ak benn bu nekk ak ñem ko ñem ko joxoon la ci aju kon Ah, ndax damaa dégg na jamono ji weddi dafa xew loolu laa dégg dafa xew moo tax kon nag euh, yooyu yëpp ma wax la boo demee foofu ci maraajax yi ak masaadir yooyu da ko ci mën a jëlee mu nekk loo xam ne lu lu leer naññ la kon daal xasan euh, discours bi discours boo xam ne chamila euh, la mm-hmm. bàyyi waaw waaw jaami maani la jaami la mm-hmm. lu ca war a bokk yëpp ma nga ca lu ca warta bokk yëpp génn na ko mm-hmm. kon discours la boo xam ne daal képp ku nekk njiitam réew wala nga nekk ab xalifa général wala nga nekk ab porte parole wala nga nekk ilimaanu jàkk wala ilimaanu juma wala nga jiite ab quartier wala nga jiite ab benn gouvernance wala nga jiite benn maire yi wallahi boo dajeeg say gaay man nga caa tibb dara rek joxe ko ca dañ ko mën a jariñoo ba tëddu primé ba yow man xiyaam almusa sasa jërëjëf Oustaz Adi xam naa dina am tomb boo xam ne dinañ ci taxaw tuuti ci biir société bi. bu ko defee sañu ñu tëjee foofu ndax jamono jiñ toll yi suñu jamono loolu la muy. Euh, li ñu junj noonu sànq ci droit wu animaux yi. jur yi ak suñu jëflanteeg ñoom te xam nga ne jamono yiñ toll nii. ñu ngi ci anamuk jëflanteeg jur ay xar yeeg yu mel noonu léeg nga gis ay xar yu ñu chargé ci oto ñu nekk ci kaw noonu ci ngelaw li muy daw wala sax ñu chargé ko ba mu nekk ci kaw ba nga xam ne fa muy war a jàll sax daanaka yëf day laal xarmeek yu mel noonu yooyu yëpp da koy gis. Mm-hmm. gis ci jëflante joo xam ne daal dafay mel ne li ngay sànni nii ma saako la waaye du du du du luy dund. loolu itam dañ koy seetlu ci jamonoy tabaski bi nii ak sax même rend bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. orienté na booy rend na nga ñëwal sa paaka ñu ñu bari duñ ko respecté. Mm-hmm. Xasan wax nga lu am am solo yonent bi dafa respecté lépp luy dund. dafa respecté xatta animaux yi ba ci njanaaw yi jamono jëmuy dund moo doon jëmmi ne ñeexal xeet wi yëpp waaye neexal mbindéef yëpp sax ba tax na ku ci mos a am problème li xew léegi muy takk morso yu xonq da ngay ñëw jubale ko ci moom bu ko nit ki amee ñëw ci moom ku mbokkul ak diine bu ko amee ñëw ci moom bu ko góor amee ñëw ci moom bu ko jigéen amee ñëw ci moom moo tax nga gis saar yu bëri di wàcc yi réglé ay kaawu jigéen ku mel ni xawlatu qad samia allahu qawlati tujaadiluka fi zawjiha ak demee ni ay rek lii ñëw di réglé kaaxam moom ak biir këram yaa ayyuhan nabi li ma tuharimu ma ahlallahu laka ak demee ni yaay nabi isa talaqtumu nisaa di réglé problème mu sëy yeeg yeneen yi ci aju yii ñëw tamit di réglé problème mu ñi nga xam ne ñi ngi nàmpal seen doom yeeg waa mbaa ñuy nàmpal lu yi beex na walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayn liman araada an yutimma radaa yii ñëw tamit di régler affaire yi problème mu fase yi ñii ñëw di régler lépp xeeti xeeti njaay yi lépp bawut dara noonu tamit la amee yuy ñëw di régler ba mu fi nekkee di régler problème mu animaux yi xam nga mos na toog rek benn pitax ñëw fekk ko mu toog moom man naa dégganteeg pitax yi ñuy def communication mu ne ko waaw waxat sa saxaaba yi man awma lu dul samay nen saa yu ma ko nenee war buuf rek sa saxaba yi ñëw wan nit nen ya ba maa ngi nii naram màgget a oomay doom ooma ay cuuj yonent bi wax ak saxaba yi place sàngam pitax sàngam nee na fa lay def ay nenam ngeen koy jël bu leen ko defati ñu bàyyi ko toog na tamit benn géléem ñëw sukk ci kanamam wax ak moom ni mën a waxee moom jaabir ne ko man waxal ak ki ma moom ki ko ma mën jaabir la mu ne ko moom nag yëgul ne man damaa màgget li ma doon jox ci lekk wàññi na ko te la ma doon sëf da koo yokk fi ma toll nag damaa aajowoo ku ma yokkal lekk te wàññil ma sëf yonent bi xoolu ko mu ñëw jaabir keroog la jaabir libeer ak leen googa sëf ko moo tax damay wax ne tey booy booy dox ci mbedd yi ndakaaru yi gis yenn fas yi nga xam ne dañ leen teg ay bureau bu yàggu rek yaa ngi xool image bi teg koy bureau ba mujj fas wi ànd ak affaire bi daanu yii nga gis koo xam ne tamit dafa yore ay mbaam lañ ko defoon sax li nga gis mbaam yoo xam ne dañ leen a jël takk leen ñetti mbaam benn xale bu ndaw di dóor ba mujj ñi daanu ci kaw tali bi ñii ñi lonk leen loo xam ne yëg nañ ne sax att ko dama ne billaahi su fekkoon ne ñooñu am nañ fu ñu mën a takkee seen morso yu xonq kon nit ñi dootuñ xajat ci tali bi ñooñu ëpp problème fuuf waaye amuñ fu ñu fa jooyte jamono ji fi bi nekk na ñu mën jooytu fekkoon tey looloo nekk ba léegi kon ñi ñëpp kon dossier yi dossier bu bu bëree bëri bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo lay hmm. kon moom bàyyi wutoon dara négligé wu toon dara hmm. moo tax moom ci boppam ci jàngale dafa wax ne yàlla dafa bind ak rafetal ci lépp lu ne kon nag ba ci sax reen bi ba ci lot ba di bay jeex lu mu wax waaye waaye bu ngeen ni reen di rafetal leen reen bi xam nga rafetal reen di bokk ci jara taxaw la ndax jamono ji taxaw na hmm. taxaw nga mooy xasan hmm. wóoruloo ne man damay tabaski yow ngay tabaski sa yaay di tabaski soxna si tabaski ñeenti xar juróomi xar ci benn place nga gasal leen benn pax jël benn ba bi ñoom ñu lay gis nga pare tëralaat beneen ba rendi moom ñu lay gis ngay préwaat préwaat beneen ba di rendi ñu lay gis wallahi loolu ku ko am ku ko man amoo xol waaye yonente def li mu jàngale dafa ne na paaka ba ñaw waaye en même temps benn bu ci nekk boo koy rendi bu la moromam gis kon demal nga jël fële ca benn espace nëbbatu rendi beneen ba demaat ba ca beneen ba nga rendi beneen ba waaye ñoom ñëpp nga bokk rendi leen ci même place gis naa ci téere bu ñu tuddee Nidaa'atu Rahmaan mu ne benn waaye dafa doon def ki tabaski di rendi ay xar rendi bii jubal benn ba rek loxo ba set set ba mu génn àdduna waaja mënta téete dara ca loxo ba kon loolu lu jar a bàyyi xel la lu jar bàyyi xel la waaye tamit nga gis yenn xar yi ñu jël leen takkate leen yeew leen aj leen ci aj leen ci kaw ci kaw yi oto bu ñuy wàccee itam bu ñuy fase ba dañuy sànni rek mën naa damm nekki façon condition boo xam ne bu méttee méttee méttee dajale lu bari ci benn waaw waaw mhm. nga xam ne amuñu fenn fu ñu mën a noyee amuñu lu ñu amuñu lu ñu lekk amuñ lu ñu naan mën nañ am ay fan ci kaw loolu ñu jéng leen loolu ko am yërmande doo ko def da nga lay yëg ne lii ngay ngay rendi dafa am bakkan ni ko amee dafa am ndey am baay am ay doom ni ko amee yow mii yow nag bu la yàlla mayee autorisation nga mën koo rendi ngir ak yërmande may la ko tamit ngir ak ngir ak bëgg nga sant ko danga nga cee war a am ak bàyyi xel bu baax a baax a baax baax ndax mos a la wax ci waxtaan yi ne yàlla moo teral doomu aadama ci wala xadd karam naa bani aadama ne animaux yi foo leen gis rek nit a leen tax a jóg moo tax animaux yëpp liggéeyal nit rek moo ko tax a jóg yii nit ki mën na koo liggéeyloo ba ba xolam sedd yii mën na koo liggéeyloo yàlla di ko rendi ko ba xolam sedd yii mën na koo jël lekk ko te dara du ko ca fekk yàlla dafa def ci alam bi ñeent di fi dund jamaat nabaat xayawaan mu ne yow jamaat li ma la sant demal nga liggéeyal nabaat foo tax moo tax jamaat mission xam yëpp mooy nabaat mu ne yow nabaat demal nga liggéeyal xayawaan yow sa mission yëpp mooy xayawaan waaye yow xayawaan demal nga liggéeyal insaan muy doomu moo tax ñii moo fi nekk kon nag bu la yàlla may autorisation boobu tamit dafa war a am noo ko mën a jëfandikoo ci yërmande ci yaatu dënn bu baax a baax. te te ñu bare oustaz aji dañuy fàtte ni nit dugg na àjjana ngir benn xaj. nit dugg safara ngir benn muus. loolu nga yaa ko jàng xadis la. Mhm. yéen a wax ne. daxalat imraatun bi hirratin rabatatha benn jigéen la goo xam ne daana julli di xoor di joxe asaka jël bëtam yu tedd yooya teg ko ci jëmmi sayduna muhammad loolu rek la nga neel waaye terewul ba mu dee seede seede ñu ne yonent bi ne safara la jëm lu ko yóbboo benn animal benn muus mu ko yàqal mënul koo baal mënul koo bàyyi mu yeew ko ci tànk lalam joxut ko mu lekk joxut ko mu naan ba muus ma dee yonent bi na daqalati daqalati imraatun bi hiratin baawu sabab yàlla mu ne jigéen tàbbi na safara ci sababu muus kese ni ne ko lan mu ne daf koo xeew booyelut ko mu lekk lu mu ko waroon a jox ci joxul ko ko bàyyiwut ko mu dem wuti ko waaye moom mi ko xeew tamit andilut ko ko ba muus ma dee yonent bi ne ci la la yàlla dëgg tàbbal ko safara waaye xam na waa joo xam ne lu sa xel daj ci lu bon def na ko yonentoo ko jàngale sàcc na njaalo na naan na sàngara waaye muy dox rek ba ci yoon tukki gis benn xaj bu mar bay tàllal làmmeñ wa mu jël moom dàllam yooyu dugal ci biir ndox mi génnee naan ne lii ma def de su ko xaj bi noon def ko ndax li ma dala ko dal damaa mar mu mar waaye li ma man la mënut jukkiwaat beneen baag jox xaj ba mu naan yàlla dëgg ca seetatut naan sàngara